moy jam bim doylo won yoni ko ci ñun ngire mo xamal ñu nu ñuy jamo yalla ñi ngi leen di denk ngeen ragal yalla ca yit bu leen nekk di saggene lenn ci seen diine ba bu ngeen di dee fekk yéen ngi jébbalul yàlla gannaaw loolu mbokk suñu xob da tey bii ñi ngi ko bëgg a fàttali suñu bopp di leen ko fàttali mooy lu jëm ci ñu yee salaat ni ñuy ragale lii di mbëggalum yàlla jalla waala soo nekkee dëkk ba mel ne Sénégal mën na am day bëgg yàlla yomb la mën na am yaakaar yàlla yombala waaye bokk na lu tumuranke mooy li nga xam ne mooy ragal yàlla ragal mbugalam wax doomu aadama yi am nañ ay garanti yoo xam ne tëral nañ ko ba xel xalaatul kenn ci ñun koo xamee ni nii day dajeeg mbëggalum yàlla ba loo xamee ni nii déggewuma ko ci rajo déggewuma ko ci télévision dama taxaw benn góor gu di ko wax mu ci ci mbooloo mu ne Sénégal yéeféer yi sax Sénégal yéeféer yi sax àjjana lañ jëm lu waral loolu mooy ngir liggéeyu seen diw loolu nag moo tax ba mbokk jullit loolee nga xam ne mooy ñetteelu pàcc ci doomu aadama bi am ngërëmal yàlla loolu lañ bëgg a fàttali tey xamal ne borom xam-xam yi dañuy melal ngëm ne la nga xam ne muy am picc am picc ngiree moo naaw laafu ndey joor ba moom mooy la nga xam ne nii mooy ragal yàlla laafu ñaareel ba mooy yaakaar yàlla bopp ba mooy bëgg ga ngay bëgg sa borom jëlle waala lii nga xam ne moom mooy ragal yàlla yaakaar yàlla bëgg yàlla ñett yi benn bu ci manqué rekk xamal ne sa ngëm moom baaxatul suñu boroom yàlla subhanahu wa taala mu ni ay yéen jullit ñi bu leen ragal kenn ku dul man ragal leen ma man rekk su dee da ngeen a gëm kay bu leen ragal kenn man rek ngeen di ragal su dee dangeen a gëm mu teg ca ne bu leen ragal kenn ci doomu aadama yi ragal leen ma man ngiree a mottali samay xéewal ci yéen mbokk jullit ñàkk a ragal mbugalum yàlla ku xamul diine rek moo koy def waaye yàlla ku ko xam ragal ko bokk ko lii bu jàngale bu am solo ba mag ñiy jàngale ñu ne xale ba daa dem ca tool ba ba mu demee ca toolu baayam yàggul mu daal di ñëw na ko bàyyi daal am na benn mbaam bu nekk ca tool ba ba ma demee dàq naa ko dàq mu bañ baay bi daal di gàddu yatam bi mu ñëwi xool ndekatekat ngir mu du du du du mbaam gaynda la mu ne wëqet daw gay gaynda gi ne ah kii mooy ki ma xam fekk xale bi moom ñëw na wër na ko fu ne mu dóor ko fa waaye mu ne kii moom ma xam loolu misaal la rek buy wone mbokk julit képp koo gis mu dalal xelam te du nelaw te mooy addinaa koy xaar daa xamul kuy yàlla mbokk yàlla muy faadun lima yurid mooy du ko neex di ko def lu ko neex lay def ca la nga xam ne mooy ay jaamam loolu nag mbokk fitna yii nga xam ne dañ koy dund wareef la ci doomu aadama yi ñu xool ana yan moyen lañ mën a jaara ngiree ragal yàlla googu dellu siwaat ci xol yi ñu tànn ci tey juróom-ñaar yoo xam ne jortu nañ ne ku ko matal bu la yàlla jàppalee da ko ragal bi ci jiitu mbokk jullit mooy jéem a xam alquran jàng alquran xam lan la ci yàlla wax lii musibam jullit yu bari tey mooy lan mooy seen diine mooy seen diw nee na lañ wax ca seen diw nangam nangam loolu rek mooy diine ci amma jullit yi toog di waxtaan nga dégg ku naan na ko yàlla waxe ci suratu Huud naka yàlla waxe ci suratul baqara naka yàlla waxe ci suratu yunus aka tumuranke aka tumuranke kon xamutuñu alquran wareef la mbokk ñu delluwaat ci téere bi yàlla bi téere boobu nga xam ne suñu borom nee na alquran jii day day yóbbu ci la gën a kawe ci jukko yu yàlla gërëm ñeel jaam bi ci texe àdduna ak texe àllaaxira soo delloo ci téere bi yàlla ba dangay xool ne yonent bi suñu borom mi ngi tagg ña nga xam ne ñoo yonent yi jiitu woon jóge ca njabootu aadama nuux ibrahim israil ñooñu nga xam ne nee na maa leen tànnoon jubal leen heure buñ daan jàng aayoy borom bi dañu koy booleeg ay rukkoo ak i jooy lu waral loolu ragal gañu ragal seen borom suñ borom nee na julit dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ne heure bu fàttali ko yàlla xolam tiit heure buñ ko jàngalee aayoy borom bi mu dolli ko ngëm te duñu wékk lu dul ci yàlla mbokk xéewal gu màgg googu lumière bu tar boobu faar boobu nekk ci suñu kanam dañuy niital la ëpp ci jullit ñi tey woon nañ ko gannaaw loolu nag mbokk jullit mënuloo ko boole mukk xam yàlla wala di ragal yàlla jalla waala ñaareel bu mbokk jullit mooy képp ci ñun di xalaat la nga xam ne moom mooy dee xamal ne mbokk dund gi ngay dund soxna yi borom kër yi étage yi lal yu nooy yi la nga xam ne mooy lekk yu neex yi fan ngay mujjëg àdduna fa ngay mujjëg àdduna mooy ku baax ak ku ban góor ak jigéen mooy li nga xam ne mooy sakaratul mawt mooy manditem de sukuraat lan mooy sukuraat mooy benn instant boo xamee ne nii la ko ci karawu bopp ba jaar ci yuur ga bët ya nopp ya baat ba biir ba ba yooyu tànk ya lépp àndandoo di metti metit boo xam ne ku ko mos dongo ko xam ca mooy ruux gi mi ngi commencé ngir teqali ko ak jëm ci xatta yonent yàlla ba mu ca tolloo ñi ngi koy indil benn këll def ci ndox mu cay dugal loxom bu tedd ba danaan ala inna lil mawti la sakarat e waay dee day am na ak mandite loole mbokk su dee àdduna bi foofu rek ngay mujj ak moom ku nekk ci ñu war naa bàyyi xel bu baax naka lay def ba ragal yàlla ngiri étape boobi bu ca tolloo suñu borom yàlla subhanahu wa taala jàppele ko yàl na yàlla woyefal ci ñun sacratul maut ibnu omar nee na dama toog ak yonent bi sal allahu alehi wasallam ci benn mbooloo ba mujj benn ci waay ansar yi daa di ñëw daa di ne ko ayu mi yàlla yónni waaw julit ñi moom kan moo ci gën mu ne ko ki ci gën a rafet jukko moo ci gën mu ne ko yu mu yàlla yónni jullit ñi kan moo ci gën a yeewu mu nekk ci gën a waajal de kooku moo ci gën a yeewu ay yeewu mbokk jullit <clears throat> yaa ngi nekk di kër këri ci àdduna tabax kër ak a baax oto yi ak a baax jardin yi soxna yi ak a baax loolu lépp baax na waaye fooy mujj ak moom mooy bis la ngay ñëw nga faat sa doom yi bala ñoo añ wala ñu reer lu ñuy xalaat nuñ la delloo sa borom buñ la delloo sa borom alal ji nga dajale woon yëpp ñu séddoo ko mooy li yonent bi alei salaam doon wax ñett yi séq doomu aadama mooy ay jegañaaleem ay ay ay alalam ak jëfam amma bis boo faatoo jegañaale yi buñ la gungee ba bàmmeel yow dong yaay dugg ñoom ñu dellu gannaaw alal da doo ci yóbbaale dara wallahi li ëpp ci nit ñi sax la ñuy yóbbaale keneen moo leen koy jox keneen moo koy génne ci xaalisam tété milliardaire ben way rek mo jënd juróom-ñaari mètre percal boole la ak moom loolee mbokk boo ci bàyyee xel da ngay gis ni adduna bi du la jaral lenn loo xam ne da lay jural mbëgulum yàlla loolu la ñu yonent ci alayhi salaam doon wax aksiru min zikri hazimi lazat bari leen lool di fàttaliku li nga xam ne bu ñëwee day dagg mboole mi bànneex yi mbokk la nga xam ne mooy ñetteelu mbir bi bi lay war a yóbbu yow borom xel nga ragal yàlla mooy lan moo lay xaar ci àdduna fan mooy sa kër ci àdduna tey ku nekk ci ñun foo sa kër sama kër a ngi fii maa ngi dëkk unité 8 unité 15 Cambérène nangam la wallahi mbokk julit sa kër mi ngi lay xaar ca armeel ya di kër goo xam ne nii yaatuwaay ba un mètre la appel mi ngi noonu buñ yee ñu roof la foofee buñ la fa dugalee kan nga fay nekkal wallahi du say soxna du say doom du sa sëriñ du sa oustaz sa borom yàlla mooy dogal ci yow la ko neex su doon jaaroon nga fu ko neex mu dëgëral say tontu ñu yaatal ko mu nekk jardin ci jardin aljanna say jëf ñëw di lay wéttali ñu lay bégal xaalidina fii babaa yàlla di indi bi su penc boo jaarul woon fa neex yàlla keroog guddi bàmmeel nga commencé ay mbugal baba fa sob yàlla ñii yàlla mbugal leen seen premier guddi ga ñuy jëkk a fanaan ci bàmmeel ku nekk ñun war ko bàyyi xel ay man ban guddi laay jëkk a fanaan ci bàmmeel man rek soxna yaa nga gannaaw jëkkër yaag doom yaag ñépp ngi gannaaw man dong sama bàmmeel am ñoo xam ne seen mbugal dana dem semaine ñii weer ñii at bu dee yéefér ya mbugal ya day sax ci ñoom bi ilaa yumi din mbokk loolu lu bàyyi xel la yonent bi wa sallam bara ibnu azib nee na ànd nañu ak moom ci benn néew biñ ñëwee ba gas xabru bi mu tiim ko mu daa di sëgg ba tuur ay rangoon daa na sahaaba yi musul leen ci mbugalum bàmmeel sahaaba yépp ne yàlla nañu yàlla musal ci mbugalum bàmmeel gannaaw ba mu wax leen ne àdduna li mu fi gis gisu fi lu gën a ñàng bàmmeel loolu tax xalifaam bu màgg ba Usmaan ibnul Affaan bokkoon na fu muy suule am néew rek day jooy ba gaa yi ma àndaloon nan ko yow dangay ngay jàng alxuraan di tudd aljanna di tudd sawara doo jooy lu tax ngay tiim xabru di jooy mu ne xabru day mooy njëlbeenu wàccuwaay ci wàccuwaayu àllaaxira boo fa fekkee lu baax la ca gannaaw moo ko gën a baax gën koo neex boo fa fekkee lu bon la ca gannaaw moo ko gën a bon loolee mbokk képp ku koy bàyyi xel dana la may ak ragal yàlla ba li nga xam ne dañ koy wax loole bañ laa yóbbaale doomu aadama bi mbokk jullit la nga xamee ne ni moom moo koy xaar mooy jëfam ci biir xabroom bokk na la nga xam ne mooy ñeenteel bi mooy ngay xalaat ci àllaaxira su dee yàlla dekkal na ay jaamam naka lay dekkee yonent bi alei salaam nee na yéen ñépp bu ngeen dee dekk yaramu neen ngeen di génne comme ni leen seen yaay jure woon yaakaar naa mosu leen gis liir buy judd di indaale tubay wala bubb wala jaaro sax yaramu neen ngeen di génne yéen ñépp suñu yaay aycha ne ko ah yi mu yàlla yónni góor ñi jigéen ñi mu ne ko hey aycha tiitaange keroog gën naa màgg ngay xalaat ndax man góor laa dendal wala jigéen laa dendal mbokk loolu lu ñàng suñu boroom yàlla meelal ko ne naka ngeen di moytoo su dee da ngeen a ragal bis boo xam ne xale yi sax dañuy bijjaaw mbokk xale bi musul def bakkaar yàlla dekkul ko bi si ci day tiit ba bijjaaw ana yow mi saxoon ci bakkaar ba dee fekk la ca loolu yow naka ngay def loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax bàyyi xel la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yàlla dana woo suñu bay aadama aadama alayhi salaam kaay nga génne cëru sawara ci sa njaboot gi ay sama borom ñaata lay génne mu ne ko junni bu nekk génne ca juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent neuf cent quatre kan mooy mucc mooy un sur mille loolee la doomu aadama yi di daw ku nekk naan fu làquwaay am te fekk kenn du mën a mucc lu dul ko yàlla subhanahu wa taala muccal lii mbokk képp koo xam ne yaa ngi bàyyi examen bu mag boobee di la xaar fokk danga doon koo xam ne dangay ragal yàlla ba bàyyi yàlla subhanahu wa taala di la ci musal gannaaw loolu mbokk julit muy wareef ci képp ci ñun mu ragal sawara mbokk sawara dara melul ne moom te yonent bi alayhi salaam nee nañu am na ay julit yu fay jaar comme ni ko yàlla waxee ci alquran aka bari ay julit yoo xam ne même bala ñoo dem àjjana daan jaar sawara la sob yàlla kii deeyaale woon bakkaar yi kabair ci yàlla baalu ko ko loolee sàcc la loolee naan sàngara la loolee njaaloo la loolee riba la loolee lu mën a doon ci bakkaar yi doomu aadama bi su neexee yàlla mu jaarale la sawara loolu moo tax ba la nga xamee ne nii moom mooy nit ñu baax ñi day dañuy ragal sawara ba baa yàlla di leen muccal ci sawara xoolal suñu ay Aïcha radiyallahu anha kii di Urwa nekkoon a ah, doom ci sërëm ba Asma nee na ñëw naa fekk yaay Aïcha benn yoor yoor muy jàng alquran ba yegsi ci aay bi suñu borom yàlla di wax ñun day waa àjjana day ña ngay nekk naan ay ñi ngi sant yàlla mi ñu musal ci mbugalum samuum ndax ñun day ba ñu nekk ci àdduna yàlla rekk lañ doon woo boole ko wuñ kon ak kenn mingi ngi fa waqana azab as samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim urwa nee na ma taxaw taxaw paasiwul aaya bi nee ma dem ci marché ba jënd li may jënd ñoo fekkat ko ci aaya bi ki ñi wax moy kan aisha radhiyallahu anha doomu abubakar as-siddiq soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam yonent bi faatoo ci kawam ci néegam ni ngi noonu fekk man ka teg ca poojam ba radiyallahu anha teewul muy ragal sawara ba aaya boobu dikk joyloo ab diir boo xam ne mënees na cee dem marché ba ñëw lii mbokk ko ne ci ñun war ci bàyyi xel bokk na la nga xam ne mooy juróom-benneel bi mooy doomu aadama yi xoolal ba nga majeure ba léegi ana ñaata bàkkaar la yàlla nattoo lu bëri ci doomu aadama yi dangay gis ne fàtte nañu loolu ca borom bi nee na ahsaahu llahu wa nasuuhu ñoom day fàtte nañu waaye man yàlla fàttewu ma de ibnu masud radiallahu anhu bi dundoon ay jamono gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñoo xamee ne nii seen diggante ak yonent bi lu néew lan ñu ngi dund ak sahaaba yi waaye ibnu masud mu ne cay maa ngi gis ngeen di def jëf yoo xam ne nii day jàpp leen na dara la jamono yonent bi ñun dañ jàppoon ni ci kabaa'ir yi la bokk mu ne la nga xam ne muy jullit day heure bu defee bakkaar dafay mel ni dafa toog ci suufu benn montagne buy waaj a ci kawam amma naafiq lu mu mën a def ci bakkaar day mel ni weñ buy naaw ci kanamu bakkanam rek bu ne nii rek mu dem yoonam waaye nga la waay mbokk jullit jàppal ni bakkaar bi nga xam ne moom nga def su ne neexee yàlla mu jàppale ci mbugale la ca xoolal al rasul sallallahu alayhi wa sallam di wax ne benn soxnaa ngi nii bokk na yàlla dana ko dugal sawara la tax yàlla di ko dugal sawara benn muus la jàppoon tëj ko ba mu dee ca joxu ko mu lekk joxu ko mu naan benn muus la tooñoon ana yow mi sax di tooñ say mbokk jullit ana yow mi sox sax di jalgati sa ndigali boroom loole ku ne ci ñun mbokk bañ war koo bàyyi xel moytu bakkaar suñu borom nee na waa ji nga xam ne daa sax ci bakkaar heure bu demee ba gis conséquence su bakkaar danay ay way ak a neexoon sama diggante ak diggante lii yépp nekkoon dal boodal mashriqayni mooy na penkook sowu loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bum ñu nax ñoo ngi julli wala ñoo ngi woor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xam naa mbooloo ci sama xeet suñuy ñëw yowmal qiyaama tuyaaba dañuy indi day toll ne montagne yàlla maasale lépp dugal leen sawara saxaaba yi na ko moo ñooñu mooy ñan yu mu yàlla yónni mu ne mooy ñi nga xam ne heure bu ñu wéetee ak li yàlla araamal daal di koy jalgati mooy ragaluñu seen boroom jàll wa ala ca mbokk ragal yàlla heure bu ñu koy wax mooy lu dox sa digganteeg merum yàlla sa digganteeg mbëggalum yàlla loolee ku nekk ci ñun war a lu bàyyi ko xel bu baax su ko defee ak jullit bokk na ci loo xame ni moom lay bàyyi xel mooy fu mu mën a toll di xool di tuub di rëccu ngir borom bi subhanahu wa musal ko loolu nga xam ne moo ñuy yóbbu ci suñu juróom-ñaareelu bind bi ca mooy jullit nga ragal la nga xam ne mooy mujj gu ñaaw moo ko ragal mujj gu ñaaw mooy lan mooy sa xol bi yàllaa ko moom borom bi mu ne waalamu anna allaha yaxuulu bayna al mar'i wa qalbi yàlla day subhanahu wa taala mooy dox diggante nit ki ak xolam yonent bi salallahu alayhi wa sallam ni gis nga bu ngeen gisee benn kaddir buy bax ñebbe nekk ca wala lu mën a doon noonee muy wëlbatikoo xolu doomu aadama moo gën a gaaw wëlbatiku ci loolu loolu moo tax ba yonent bi salallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu ëppoon ci ay ñaanam ci ay ñaanam yaa muqallib alqulub sabbit qalbi ala diinik ay yàlla yow mi wëlbati xol yi ngallawaayi sama xol bi saxal ko ci sa diini loolu it mu war ab julit moytul ma place fitna moytul place bokkaalekat ya bul ma déglul la xuraafaatkat yi di wax yooyu yépp mën na laa yóbbaale lii nga xam ne mooy suñu borom xam-xam yu jëkk ya bokk na lu ñu gënoon a ragal seen diini mooy la nga xamee ne nii mooy xol bu wëlbatiku avant la nga xamee ni nii moom mooy seen faatu su ko defee ci loolu moo lay yóbbu foo mën a toll ngay góorgóorlu di xisaab sa bopp di xool sa bopp waaw man tey jii day su ma dee woon tey lan mooy samay xaal waaye nag ëllëg ëllëg day ëllëgi yàlla la loolee tiital la loolee ngay ñaan ñaan comme na ko yonent bi alayhi salaam doon ñaane góorlu ci loolu sa kémtalal kattan ay yéen mbokk jullit xam leen ne suñu borom yàlla day la nga xamee ne nii taggal nañu ko mooy nit ñu baax ña nga xam ne ni da leen a gërëm ca ñu nekkoon ay yonent ca ña nga xamee ne nii dañoo nekkoon ay siddiqin borom bi subhanahu wa lan la wax ci ñoom kaanu yusaari'uuna fi lxayrat wa yad'uunana rëhaban wa rëhaba wa kaanu lana xaashiin suñu borom mu ne ñu baax ñooñu day waxul ne dañ daan def lu baax waaye dañ daan jëkkante ci def lu def lu baax na am ñun ñëpp ñu ngi nii ñëw nañ ci àjjuma ji mais ndax ñi teel a ñëw toog premier sappe daan bàyyi ba ni ñuy waaji li xam ñuy ñëw la wallahi kaanu yusaariuuna fi lxayraat dañ daan jëkkanti ci julli ci koor ci qiyaamu layli ci sarax waaye loolu lépp dañ ca daan boole fu ñu tol ñi ngi ñaan yàlla ànd ak ragal mbugalam ànd ak yaakaar ay xéewalam loolee mbokk la yàlla tagge woon nit ñu baax ñan amma niñ ko waxe woon suñ njël bi nu xutba jamono ji ñuy dund képp ko yàlla aarul ragal yàlla dana génn ci yow mu ngi noonu sëñ jiw ku ko yaakaar àddina nga jëm place sàngam kuñ ñu fa suul àddina nga jëm la nga xamee ne nii moom mooy ah nangam ki nangam képp ku ko doxee àddina nga jëm mbokk loolu wallahi suñuy wax rek la yàlla waxu ko yeneen ci yàlla waxu ko te du ñu dem mukk àllaaxira suñu borom yàlla di soppe ay kàddoom yàlla jalla wa ala la nga xamee ni nii moom la wax mooy jullit day ragal yàlla ragal mbugulum yàlla ba mu dajeeg moom am naa garantie yi nga xam ne garanti nañ ko suñu bopp yépp suñu wiru bopp la xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu bari woon ci julli fajar bokkoon na lum daan tari mooy suratul insaan ci bisub àjjuma imam jazahullahu xayran fajaruk tey gi rek taril nañu ko borom bi subhanahu wa taala di wax gaay yi nga xam ne mooy innal abrar gaay yu baax ya nga xam ne dañ daan nekk di taxawu jaamu yàlla di jël seen alal dañ gën a bëgg di ko yóbbu ca miskin ya naan leen soxlawuñu ngeen sant ñu soxlawuñu ngeen gërëm ñu ñi ngi leen di jox lii ngiree am ngërëmal yàlla inna naxaafu min rabbina yawman abuusan qamtarira li tax ñuy def li lépp dañoo ragal bis ngi ñëw suñu kanam di bis boo xam ne bu ñàng lay doon bis bu tiit la lay doon bis bu weex lay doon suñu borom neena ma musal leen ci ayu bis bobé daal di leen di dajale aljana jo xamne ne dañu fay sax ba faw mbokk li la yonent bi ak sahaabam dun dund mu nok li nga xamne mom lañuy dégg suñu radio yi di dégg suñu suñu télévision yi ca la nga xamne ay nit jël nañ leen tek leen place yàlla waxloo leen loo xam ne nii yàlla waxuko ko yàlla waxuko ko wallahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom yàlla day subhanahu wa taala nee na wa izzati wa jalaali laa ajma'u ala abdi xawfayni wala ajma'u lahu amnayni in ammanani fi dunya axaftuhu yowma alqiyama wa ida xaafani fi dunya amantuhu yowma alqiyama xasanahu alalbani suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na maa ngi waat sama màggaay ak sama teddaange sama jaam duma ko booleel mukk ñaari tiitaange di ko booleel ñaari kuulute bépp jaam boo xam ne ragal na ma ci àdduna tiit sama mbugal su ñëwee yowmal qiyaama danaa ko dalal fegal ko mbugal tabbal ko aljanna yal na yàlla boole ñu ca waaye sama bépp jaam boo xam ne dalal ne xelam ragaluma ragalul sama mbugal ànd ak dal xelam bu ñëwee àllaaxira danaa sànni ndal xal ga fële roof ko tiitaange tabbal ko ca la nga xam ne mooy mbugalam mbokk li may waxi yàlla li may waxi yonenti yàlla yal nañu yàlla delloo ci waxi yàlla ak waxi yonenti yàlla yal nañu yàlla wërsëgal ñu gëm la yàlla ko bi yonentam wax yal nañu yàlla musal ñu weddi leneen lu dul loolu ñépp ñoo xam ne ñi ngi ñëw di yàq pas-pasu dooma aadama yi yal na yàlla musal ñu ci ñoom musal ci suñu njaboot yal na yàlla wërsëgal ñu ñu bëgg iman bu sell bu sell yal na yàlla taaral ko suñuy xol allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma habib